Moussa Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la dalal. yow yaa yor euh, kàddu euh, parti bi di bokk gis-gis euh, ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy xew-xew politique li xew àjjuma ji rawatina tey ban commentaire ngay def ci justement manifestation googu nga xam ne autorisé wuñu ko te opposition Yewwi Askan Wi woote woon ko ngir nag ñaawlu listam bi ñu dakkal. comme ni nga ko waxee manifestation bu ñu autorisé bu ñu jàppee nag ni ba semaine bale passé bi ñu autorisé manifestation wu waa yeewi bi mhm. def nañ seen manifestation ñibbi dara tojul dara débordé ñu encadré leen mhm. suñu seetee itam ci li ñu génnee ci force de l'ordre pour ñu teer leen manifestation bi mhm. xel day mën a nangul ni buñ leen ko nanguloon dina yombal mbir yi dinañ manifester waat seen kër te coow du am dafay ñu fàttali it ni réew mi manifestation dafa nekk loo xam ne ni ak démocratique la ñu ciy gërëmee Ablaye Wade au passage. Mm-hmm. loolu itam lañu seetlu ni bu ñu sañoon daal yu mel nii ñu bàyyi leen ñu marche su fekkee ni marche ba narta jur toow narta jur yàq narta jur lëmbe moo tax ma ni arrêté arrêté arrêté bi nga xam ne ni euh, préfet jël na ko. Mm-hmm. mënoon naa ñàkk ndax bi mu leen ko mayee ñu def ko. mënoon na leen rek yebal ñu dem ci beneen barab fekkee ni bañ xatal biir ndakaaru la wala li ni mel waaye arrêté bi dafa am gouverneur dafa jël arrêté tënk ko ci ñaari mbir mm-hmm. bu njëkk bi mu ni dañoo toll ci période campagne euh, pré campagne dañuy tere lépp lu niru comme propagande déguisée ma ne dëgg la kay mm-hmm. waaye loolu ñu ngi koy wax média yi maanaam télé yeeg rajo yi privé comme public ndax li tax loi boobu ñëw dama koy fàttali saa su ne ne jamonoy 92 ci ket code consensuel Kéba Mbaye mhm. ci lañ ko jëlee woon ndax dañ daan seetlu bu élection jub see rek mhm. le président Abdou Diouf génn naan lay def tournée économique di waraale pour euh, profito di campagne mhm. ngir nag yemale moo taxoon jamono jooju te benn télé rek nekkoon fi sax à l'époque wala euh, ñuy pour yemale ñëpp yem ci wàll looloo taxoon ñu def ko ma ni bu dee loolu lañ ci sukkandiku man jàpp ma ni lu pertinent la lu tax ñu leen tere waaye beneen bi mu wax dani trouble à l'ordre public day bañ ñu salfaañe wala andi fitna ci dëkk bi mm-hmm. ma ni su fekkee boobu la soo jëlee waxtu waa yeew yi mm-hmm. dañ koy mën a mm-hmm. ñu ni wax ni wax ba ni buñ matee ñaari junni ndaw mën nañ dem jëli ji Macky Sall ca palais ba déloger ko ma du waxu responsable. ak ku ko mhm. muñ wax lu ñu war a condamné la. beneen bi ñuy wax xaalis ba ñu sàcc kër Farba Ngom dégg nañ ñuy wax bay mel ni kuy junju xale yi ne leen su beneen yoonee mën ngeen dem daj xam fi xaalis bi nekk. ma ne mhm. yooyu day mel ni kuy ñaax xale yi fi indi fitna te moom lañ gis itam démb ma ne bu dee foofu la préfet sukkandiku kenn du ko ko dàqal am na élément yu ko may yoo xam ne ni mu dàq ko njoxtu ni. ñiy marche li leen bëgg yëkkati mooy andi problème euh, andi problème. Mhm. loolu jàppee foofu jàpp naa ni honnêtement su ma ko bañal préfet même bu fekkee ni su leen bàyyi woon ñu marche jàpp naa ni ni li génn ci soldat ñu mhm. génnoon période boobu gowuma itam ñu mën ci leen ndax dama jàpp ne ñu ci bëri ay fuural la dañ euh, koy def rek ci politique pour yokk karaw ci xar mi mhm. pour yokk ambiance ci politique bi mais am na baat yoo xam ne moom ku ko mun ci wax dañ la war a dañ ko war a ñaawlu dañ ko war a condamner moo tax su ma déggee ñenn ci wàllu société civile bi di woote beneen wax te bu nit ñi waxee wax naka du noonu. Mhm. kenn du leen ci dégg bu dara desul lu dul yenn wax yi ñu bëgg ci wax li ma jàpp démb daal mooy ay gone deewaat ni mhm. mag ñi kenn gisu leen ña doon woote ñu ci bari itam génnuñu seen kër. Mhm. ñii xëy na soldat tee leen tere génn. ñii gisuñu leen fenn ci Ndakaaru. maa ngi gis benn vidéo buy circuler ci réseaux sociaux yi óoruma nag ndax bëgguma tooñ boo xam ne nii la président Habib laa ci gis ma gis xale bu jigéen toog ci ginnaaw xaw ma doom la doom mhm. di doxantu daan ci biir këram naan ndax xale yaa ngi yëngal loo bëgg a wax dañoo woo xale yi ba pare ñoom génnuñu mais yéen doy ngeen seede ndax gis ngeen leen lii lañu wuteeg ku mel ni Ablaye Wade gis nga boo xare boo ciy dem nga woo xale yi lu mu métti métti dala ko war a jaral nga jiitu. Mhm. waaye téye say doom wala yóbbu leen école génne doomu jàmm du yoon du dëgg. démb euh, Ousmane Sonko Barthélémy xalifa Khalifa ay Aïda Mbodj Habib Sy lu mu métti métti ñoo waroon jiitu ndax bu waxi jax ñoom ñooy jiitu di wax ñoom ñooy jiitu di woote luñ teg luñ mën a teg seen kanam jar na bañ jàpp leen waaye comme wootoon nañ ko loolu la ñu waroon jiitu loolu laa gëm man. waaye ku nekk sa cuggalu béy ku nekk ak ñi ngay doxee ñi ma ci yërëm rek mooy ndaw ñi nga xam ne toujours ñoom ñooy fay lourd tribut bi alors que ñi koy defloo seen i doom duñ ca dem ak lu mënti am daal lii dëgg ba dëgg mooy yoon yoon mooy jiitu mooy njëkk ku fi wax laka dul yoon yoon daa war a tegu sa kaw même bu fekkee ni loi yi ñu wax ni moom la ñuy tëggee des nañu toggaat ko des nañu xoolaat ko. waaye daal ab balaa ñoo wax ci loi yi tey responsabilité yi justement euh, noo koy situé. responsabilité yi jàpp naa ni état. Hmm. munoon na bañ a munoon na leen ko nangul. Hmm. encadré leen ndax li ma génn li ma gis mu génn ci politique. suñ hmm. ko génne woon jàpp naa ni dañ def seen marche xëy na même bu dee bëgg nañ def ci leneen ñu génne leen. mu bañ a dem. ndax itam nag ak lu mënti am droit euh, dem ak dikk moom liberté la bu ku nekk sañ am su ku nekk sañuy def. waaye ñoom itam waa yeew yi li ñu wax moo dul waxu kilifa. suñu liste su bokkul élection du fi amee te yow nga nangu ni sa liste baaxul wax ji man leen da ngeen juumde bu leen wax suñu liste bokk da ngeen naan ñun bokkuñu waaye Benno Bokk Yaakaar tam bokkul ahan kay lay wax ju neex a dégg waaye yow nga nangu li nga def baaxul bëgg a sonal loolu man bokkuma ci ñi nekk ñi wax ay solidarité de l'opposition hmm. dëgg fu mu mën ci nekk nañ ko duut baaraam bëgg électorat warul tax ñu nekk ci position wu ku nekkul ci yoon ak boor boo mën ci féete ñun la nekkoo ci yoon munoo nangu ni sa liste baaxul keneen listam baaxul nga ni sama liste day dem par force déedéet da nga naan man kay bokkuma ba pare su ko defee nit ñi ne ah ci kat nangu na li ko dal waaye kee comme maa ngi moom ñoo bokk ak moom it warta bokk lii mooy waxi dëgg kon Benno ak Yewwi waruñoo bokk ci élection yi te ñiy wax nañ ko dàq tamit àndu leen ci non nañ ko dàq du waxu ñu baal ma ci wax ñu koy waxee du wax bu sérieux yenn yi waxu naa fekk la ñu baal ma wax yi wax neexul mooy muy dëgg muy nekk juróom-benn juróom-ñett liste juróom-benn yi def naka def li leen war. Hmm. ñaar juum ci ngeen nañ ko dàq ci ci kaw lan et juróom-benn yi nag liñ def. Hmm. nekk ay sénégalais dépenser seen xaalis dépenser seen énergie dépenser seen nekk ay parti légalement constitué des coalitions am dayo yi ci wax ñaar juum te ne comme ñaar juum ne gis nga maslaa mi ci réew mi lañu ñu war a baax. Hmm. ci juum te nekkul ci dëgg rek daan ko dangaa juum nekkoo ci dëgg puusal na leen xajal leen ñi nekk ci dëgg ñu dem keneen ku wax leneen yaa ngi ci waxu naka sax kandang hmm. loolu mooy liy dëgg maintenant nag su fekkee Moussa Diakhaté daa bëgg a falu ba mu jaral ko muy wax lu mu gëmul loolu itam c'est de la manque loolu mooy ñuy wax manque de sincérité parce laaj bi la ñu war a bàyyi yeewi warta bokk euh, Benno Bokk Yaakaar warta bokk léegi itam la ma waxoon li tax ma ni lu ci mun ci am loi bii nga xam ni moo ñu tënk di loi électorale mhm. lu mu bonadi bonadi moom lañ demee woon élection daan ci mag daan ci Ablaye Wade dem ci élection jël ci ay mairie yu mag parce que dem boo njaay yu mel ni euh, Dakar ak Ziguinchor boobu loi mënuñ ko sotti ci biir jeu bi buñ demee ba génn ci élection yi bu jëree toogaat ñu waxtaanee ko ñu toog waxtaanee ko mais kenn bu changé règle jeu yi au cours du jeu li mu yées yées moo ci nekk gub moom la ñuy demee Mm-hmm. li am solo ba am solo koy mooy nguur ñu ngi koy jëlee ci urne yi dem voté ji wax seen i nit voté ak seen liste ba disponible même bu fekkee ni jàpp naa ni conseil constitutionnel dafa manqué courage hmm. ndax li mu waroon bind sama njàngum droit soriwul bi mm-hmm. waaye liste bu matul warta bokk liste bu respecté wul parité warta bokk ma jàpp ni liste yeewi comme bu wàllu ñaar yooyu comme bu euh, benn bokk Dakar mm-hmm. ñaar yooyu moo leen dal waruñoo bokk da ngeen war a beddi. tey tey jii euh, waxi liste moom la ñuy wax moo waral coow li yëpp mais nag processus électoral bi ba mu door léegi yow nan lan nga ci jàpp. processus électoral parce que parrainage tamit amoon na coow. mais parrainage mosul jóg ci coow. Hmm. man jàpp naa ni parrainage bii nii ñu koy defee baaxut. Hmm. waaye comme ñun ñoo ko nangu woon fii laa la waxoon sa rajo bii laa waxee woon. Hmm. ni la ñu ngi koy ŋàññi waaye ñun kenn ñu am fu lay taxawu toog. ne nañ ko boycotté ndax ñi ñu ëpp ci ñun faloo leen ñoom rayante gii nga gis duñ ko def ci ceeb bu cher duñ ko def ci emploi wu ndaw ñi waaye mu dara desul lu dul jël place bëgg a falu day jaral policier dañu mel ne ñu ñu ñu ñu xaptal dañu mel ne ñu jëfu da leen jaral lu ne bu dañ ko def ci ceeb bu cher bi wala ñu def ko ci njàngum xale yi nga dégg waaye heure bu élection ñëw falu ñëw mu jaral leen lu nekk processus bi am na ay manquement loolu ñëpp d'accord nañ ndax boo seetloo même code électoral li ñuy wax bind juridique ñàkk a toog waxtaanee la parrainage bi itam jàpp naa ni ni ñu koy defee des na waaye bu fekkoon ni keroog ba ñu téyee Bougane Gueye Dany keroog ba ñu téyee Fadel Barro la ñëpp sa woote woon ni ah gars yi dañ taxaw mais ku nekk dafa jàppoon ni loolooy problème mu Sénégal ba ñu ne tuyu Karim Wade ñu ne Karim wadd rek la ñu ne tuyu Khalifa Sall ñu ne Khalifa sàll rek la ñu ne tuyu Ousmane Sonko ñu ne Ousmane Sonko rek la du ñu am solidarité d'opposition taxawandoo xeexandoo ku nekk day nekk si ci galu guyam bu nekk nekk sa agenda caché mu manque sincérité commune euh, processus électoral bi nag lu jara defaraat la hmm. lu jara waxtaanee waat la waaye dama ni àddina dara xëyul sot li andi woon code 92 war naa mën a andi consensus 92 bu Kéba mbay war naa mën a andi acteurs yëpp toogaat ñu tëggaat code électoral bi ba du am benn coow boo xam ne dina ko andi ci wàllu élection su ko defee Sénégal jëm ca kanam ñu appliquer ay loi parce que yenn yi ñuy wax daa teguwul fenn hmm. constitution bi soo déggee nit ñi di ci wax day mel ni la xewoon 2011 moo dellusiwaat mooy ay mbiru troisième mandat la ñuy wax te man yaakaar naa loolu wax di daan sa rek jàpp naa ni le président Macky Sall xalaatul def justement tey Sénégal bokkul ci ñi nga xam ne signé nañu euh, charte CEDEAO bi jëm ci limitation des mandats ndax loolu amul lu muy wëndu. ah man de jaaxaluma ah, mbirum Karim Wade CEDEAO waxu ci woon mbirum Khalifa Sall CEDEAO waxu ci woon mbirum parrainage bi CEDEAO waxu ndax dégg nga état Sénégal ñàkk ko signé man dama jàpp ni bu ñu jaawal ba xeex yi ci lo législative la jëm xeex bi mooy sexe ba tere waa Benno Bokk Yaakaar ñu am majorité absolue à l'Assemblée nationale loolu enjeu bi mais foog nga nekk situation bi ni mel ni di ngeen ci egg jaam tërëb mooy yaakaar su fekkee nag ni ku nekk daa beru bëgg a yàq xapp euh, li ñu wax olof bi wax xapp suuf si cere ji su boobaa opposition bi mooy diviser wu dafay arranger le pouvoir mais li ñu war a xeex mooy nan la ñuy fexee tey tere le camp du pouvoir ñu am une majorité à la absolue à la te lenn rek koy may képp dong mooy urne yi te élection yi kenn xalaatul di ko puus parce que parce que ñaar juum nañ wax yépp ay waxi baal ma waxaat fi encore du terme waxi naa feex kon nangu ngeen ne dinañ dem ndax déjà yow nee nga loolu mooy lu ñu tere dem ah ñoom ñoom Benno Bokk Yaakaar donte seen nekkuñu ci règle yi euh, kon nangu ngeen ne dinañ dem ak lu ci mënta am. dama ni 2011. Hmm. nit ñi dañu jàpp ni président candidature Ablaye Wade nekkuloon ci yoon man ma ni conseil constitutionnel lay déglu. Hmm. bii man la jaan ji matt président Pape Diop nekk candidat ñu dem parrainage ñu éliminer ñu. ñu def hmm. recours ma génn wax ci sa rajo bii ne la. li ma li conseil ko ne ànduma ci d'accorduma ci def mm-hmm. naa recours mm-hmm. waaye lu recours bi wax rek ci lay tënk loolu laa waxaat deux mille vingt deux man bokkuma ci ñi nga xam ne ni dañ tey ñu wax lii suba ñu wax lële damay nekk constant dama ni réew da am luwaa yi koy tënk même bu luwaa yi desee baax dañ koy liggéey soppi ko mm. waaye du ku nekk nam la neexee saa yu la neexee fam la neexee nga utiliser ko loi su boobu day andi désordre ñun ñoo ci àndoon dem ci parrainage bi dem ci processus bi te moonte Ablaye Wade waxoon nañu ko démb ak barki démb waaye kenn dégluwu loon ne leen conditions yi ngeen di demee di ngeen ko mat seeni i baaraam waaye boobu li ñor kenn ku nekk ci ñun mooy noo bëgg a faloo bu hmm. ku nekk dem nag ba jaan bi matt la nga bëgg a taxaw ni du fi amee du loolu ba pare di wax leader yi su ñu génnee di xeexi suñu wootee ci xeex yi nañ jiitu ci xeex yi nañ ci jiitu te bañ a jiital xale yi toog seen i kër même bu police téeméeri police nekkee sa buntu kër génnal ñu jàpp la parce que da ngaa ay doom jàmm yóbbu say doom ñu jàngi wala toog ak say doom loolu mooy liy dëgg politiciens yi nañ ñun ñuy politique nañ respecter les citoyens ku nekk nag na nga assumer say position ak les conséquence yam lay jural ñun daal li ñu leer mooy waajal nañ suñu élection danañ ci dem fexe ba pouvoir bi du am majorité xeex ñoom te benn moyen rek moo am mooy par les urnes leneen lu waay def yaa ngi génn ci état de droit te ñun on se veut des mais amoo tiitaange ci élection yi ñu jëm. tiitaange ci wàllu. Euh, violence. Euh, mais est nga ni Sénégal ak politique ak élection ak violence du lu bees il appartient maintenant du man du yow du keneen loolu rôle état la mooy garantir sécurité nit ñi ñu dem vote ji état un état doit être fort dans n'importe quel pays quelles que soient les ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor kaaraange réew mi kenn waru leen salfaañi dañu war a taxaw taxawaay bu mat sëkk lii yoon ñu doxal ko ba mat sëkk te mu bañ ñu bañ dund ci réew moo xam ni day am xoxatal ak bundu xatal ci boor bu mënti nekk loolu mooy li dëgg li yoon tiitaange gi mënul weesu nag ku nekk def la la war waaye ñun ñëpp ñu tegu ci kaw yoon te yoon itam bañ a jeng loolu mooy liy dëgg li ci des nag élection gëwuma gisuma lenn lu ko war a mën a teree bañ am ñun ñu ngi waajal man mii di wax ak yow barki démb lañ ma def coordonnateur comité électoral bu Dakar bu sama coalition bañ a xuus ba ñu mën itam loi bi dal leen yi waaw waaw waaw loolu laa la bëggoon fàttali sax. du ma ko def man man li ma la wax xam nga bu fekkoon ne li ñuy wax. ñu loolu ni ñuy jëfee. <laughs> dëgg la doy ngeen ñu seede. dëgg la du ngeen ñu dégg ci wax ju ñaaw du ngeen ñu dégg ci wax ju warmaalul du ngeen ñu dégg ñu jàng ñu jég ñu jéggi yoon suñu d'accordul nag danañ ko jéebaane ba ñëpp dégg ko hmm. waaye bu yoon dogalee dañuy tënku ci yoon loolu mooy état de droit loolu mooy position de républicain keneen ko bëgg def neneen il appartient à l'état d'assumer sa responsabilité. Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Moussa Diakhaté yor euh, porte-parole bokk gis-gis merci beaucoup.